daan naa doxee balafon rii ma koddu njaay ba asolem sama kër yaay wallahi azim bu ma ñëwee loolu nu ma fay tellement que damay bañ dugg taxi parce que boobu taxi boo amee 300 mu andi la asolem 1977 boobu maa ngi am 14 ans fukki at ak ñeent di di way ci orchestre bu ñuy wax Takarnase ak samay mag ñoom Ousin Ndiaye hmm. ñoom Ismaïla Ndiaye ñoom Ringo Ndiaye hmm. ñoom sa Sissoko ñoom grand bari bari ñoom euh, maxusis mhm. fahardo mhm. fàttewuma kenn donc yàlla mi dërëtawul ñooñu nag uuf ma def ma comme seeni doom mais daw mosuma bëggee mosuma concurrent aussi te moment boobu juróomi orchestre noo fi nekk orchestre bu ñuy wax takkarnaase baobab guy gi super jamono ak euh, gëstu baobab étoile de Dakar boobu Youssou Ndour mi ngi étoile de Dakar ak El fay Faye Éric Mbacké Ndoye euh, ñoom Alla Seck boobu orchestre bareegul fii mhm. donc mais bokkul ak léegi nga xamee ni orchestre yi macha allah xale yu ci bari yàlla dimbali na leen am na nañu seen groupe mu ngi doxal ma ci profité aussi di ñaanal yàlla sama doom Sidi Diop mi ngi war a dem Zénith Euh, le 29 ans ci kàttanu yàlla man sax ci kàttanu yàlla euh, ci ñi mu invité ci laa bokk. Mhm, dinaa dem dinaa ko dinaa ko rejoindre. foofu ñaanal ko yàlla. aussi yàlla defal ko ci ndam. parce que boo seetee au fond li mu def barki démb dem kër moroomu artistam yépp dem kër Wally Seck dem kër Pape juuf dem kër papam kër Youssou Ndour bi may bi may gisanteeg moom def ni papa sa kër laa doon bëgg a ñëw ma ne ko jaru ko. fekk ma dem fay euh, di ko seetaan yi donc yàlla mi dara tëwul vraiment min ma sa kër laa doon ñëw pour suba ma ni ko jaru ko parce que jot amul mën nga fi ñëw soto mu fekk parce que man tamit tooguma loolu mu def dafa rafet euh, ma leen di digal loolu na continuer mais pas mu yam fi na ñuy demlante di ñëwlante te wóolante seen biir kenn bañ leen jaxase parce que ñoom attention ñi leen di jaxase ñépp mooy seen entourage yi rek. Mhm. ñu leen ñi ñi nga xam dañuy ut ci ñoom dërëm rek. ñu mhm. ñëwee diw bëggula diw nangam diw lii mhm. kenn ku ci nekk. man de bi ma bi ma ca tollu dëgg-dëgg. sama xarit yi ma daan àndal depuis ma nekk xale. ñoom laay àndal ba fii may wax ak yow. amul benn changement. ba ni président Macky Sall yoree nguur gi gis naa façon nit bu ne waaye dina xam naa ñi may waxal. xam naa ñi may àndal. Mhm. xam naa ñi may defal. xam naa fi may toog xam naa fi may waxe c'est très important parce que sénégalais moo bindoo noonu na ma yàlla baal du ñëpp mais sénégalais ñu ci ëpp dañu soxor quatre vingt pour cent yàlla nu dimbali nag ak yonent bi may nu ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu jiitu mu dugg ci suñu xol yi mais sinon doon na garaaw trop. Mhm. parce que sénégalais da lay fekk bu sañoon nga dee tey xool ko ci kër gi ngay bokk nit ndey ak baay yàlla defal la lu mu ko defalul mënu ko supporter te ngeen bokk benn ween c'est grave. donc loolu du ci kër yi fépp la. fépp la. fépp partout. boo ci gisee nag yàlla ubbi ci nit wala yàlla dimbili la rek xamal ne sa xol bi dafa set te xol bu set c'est très important moo tax ma bëgg waykat yi aussi xale yi nga xam ñoo mujj a juddu yàlla dimbali na leen dafa mel ni footballeur yu njëkk ya ñoom mbay Fall ak footballeur yi léegi génération bu bees bi ñoom Sadio Mané li nu am ci football ñoom mbay Fall oh, amuñu ko. mais ñoom Mbaye Fall dañu barkeel le mm-hmm. parce que dañ ko doon def ak. générosité dañ mm-hmm. dañ ko bëggoon. donc di ko def te xalaatu noonu sax ay million ki ay milliards léegi ay milliards ngi ciy gis. Mm-hmm. donc euh, génération bi. bu nu bëggee yegg fi nu yegg ñun ak fi Youssou Ndour yegg ñun tey boo gisee euh, kilifa boo gis ci àdduna fi bëgg na toog ak ñun par force parce que ci réew mi la nu bokk c'est vrai que man Macky Sall la mooy sama leader mooy sama lepp te duma ko soppi duma ko changer mais tey ku ci mel ni président Diomaye ku ci mel ni premier ministre euh, Ousmane Sonko dañ leen di ñaanal yàlla mu am réussite parce que seen réussite mooy sunu mooy sunu mooy sunu njëriñ ñun ñëpp boo duggee ci gaal bul ñaan yàlla ëmb bi rëcc da ngay ñaan yàlla gaal gi rëcc ndax bu gaal gi rëccee nga rëcc ëmb ba rëcc mais doon ñaan yàlla gaal ga suux bu suuxee rek c'est fini da ngay dee ëmb ba rëcc ëmb ba suux keneen ka soos aussi di santaat yàlla bu baax ci question bi mooy wax rek xale yi dana gën a góorgóorlu gën a jàppante gën a bëggante gën a fonkante te xam ni li Youssou Ndour naan euh, waar wi bari na ku nekk na bay sa waar loolu c'est très important te ku nekk du teel li nga war a am da koy am waali mën na tëgg fii am ay nitam di tëgg fii am ay nitam Pape Diouf tëgg fii am ay nitam keneen na keneen la même chose mm-hmm. c'est ça la vie mm-hmm. mais pourquoi kii may tëgg tey mu ñëw dend ak man loolu du raison ku ci nekk ak moment ba nga war a jouer fekk programme nga ma fekk keneen tamit jël na diw pour mu jouer ko bu ko gisee neneen gisal ni rek kooku sa nawle la sa frère la mën ngaa dugg sax jouer ba mu yàgg xam nga loo yàlla na ko yàlla yërëm lan la ne woon xale yi léegi da daan jouer ba ci yàgg rek génn ñëw sama soirée wala mu dem soirée Youssou Ndour wala mu dem soirée Baaba ma wala bu Thione Seck bu ñëwee fii dina fa am wërsëgam fii dina fa am wërsëgam te fu mu ñëw dafay neexal xale yi nag defetuñ loolu kenn ku ci ne dangay ngay yem sa pàgg te loolu baaxul joxul joxul musique bi avancement jékki-jékki ba càgg si di jub joué ba càgg rek dem dugg soirée Wally wala Wally jékki-jékki joué ba càgg rek dugg soirée Pape Diouf wala bu Sidi yooyu moo am solo nanu jàppante bëggante fonkante te yéenante jàmm te kenn ku nekk sa wërsëg yàlla dina la ko jox. aca aja <laughs> euh, di